Euh, monsieur Modou. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw toogal toogal toogal tey de sant nañ bu baax a baax ndax bésu soxna Aida moom du tuuti wax dëgg yàlla te ay boroomu nit la aussi vraiment sant nañu fekk nañ fi ay bernde wax dëgg yàlla macha allah ñëpp ñëwoon nañ nag mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yeeg dëkkandoo yeeg ñëpp daal macha allah ñëpp ngi teew nag di waajal nag. wa ah, ci katunu yalla ba ngone wa taxawaay mom rafet na moom nii la yag di taxaw waaye nak tay bisu tay bi ni dafa rawati nak bisu taw bisu tay bi ni mu ko jele machallah parce que goudi Serigne saliw la wa goudi Serigne saliw motax soxna Aida ko jele musu ko jele bés wa bés bi tay mom machallah mom wa wa wa buñ julé ci yonent bi di sant serigne Touba di wax jeuf serigne Saali di wax khalifa bi yàlla na fi yàgg lool te ànd ak ak ñi ngi fi ci kër Soxna ay bu serigne di wax ni liñ ko xamé won rek ak liñ ko daan gisé rek manam tay dafa yok ndax mom dañ ko bak ndax turum bi ñu dippé Soxna ay bu serigne Saaliw kon ni rek lay mëna mel xamna biñ fi tegee suñu tank ba légui te ci bis bi leen ñew manam teraanga yi big ba légui kenn noppaluwut maanaam xéwal foo yaakaar na xéwal guy nit di xéewloo rek ak murit rek mi ngi koy bernde di waajal nag jëm fële te xam naa ne fële lay gën a neexe bu soobee yàlla waaw xarit yeeg mbokk yeek ñëpp àndandoo nañ fas yéene jëmmal bis bi waaw parce que préparé nañ ko xam naa ne dama ragal ne yaakaar naa ne Gàmbeek Tuuba foo xam ci Sénégal rek eh, doomu aadama jóge na fa pour ànd moom jappale ko ci bis bi euh, magal bis bi ngir jëmmi Serigne Saliou ànd koog Mohamed Niang waaw jëwrin waaw jere jeuf waaw am nañ ci yeng ak ginnaaw bi ñu sant sëñ eh, yonent bi ak sant sëñ ak Serigne Touba ak Cheikh rafal ñi ngi sante mbokki taalibe yi wax da wax deug yalla soxna Ayda mom duna tay duna gule tey yag na def xanaa di ko ñaanal fi mu jëm ak fa mu ba mu àgg yàlla na borom àggale di ko ñaanal moom di ko ñaanal njabootam gépp di ko ñaanal ànd jaam yi ndax soxna Ayda moom suñu lépp la wax dëgg yàlla suñu la bisam bii nag kon noonu rek la war a dem ndax dëgg yàlla lépp a ngi fi tranga ji lépp a ngi fi dara manqué fi ñu fas ko ànd ak moom gunge ko nag fa fa mu jëm ca grand théâtre sant sa fas sant Serigne Saliou bu baax a baax a ndax ku du ku du soxna Aida rek da war a sant sëñ Saliou sakkantu naa ak moom nga xam ne moom sëriñ Saliou la bu duppee boppam te la tax mu duppee ko sëriñ Saliou moo ko xam ak yàlla ak moom yàlla na ko sëriñ Touba ak Cheikh sëriñ euh, Touba ak sëriñ Saliou Mbacké mi tax mi def lépp daal yàlla na ko suñ borom fayal fayaluñ ko te ñaanal sëñ Saliou Mbacké tim suñ borom gën a yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem di ñaanal mbokki taalibe yi ñu fi teew ñëpp. bàyyiwuñ kenn mbokki jullit yeeg mbokk yi fi teew ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal di sant di leen sant bu baax nag di sant waa waa télécaméra bi fi ñëw waa waa TV Bawal TV Bawal TV tam ñu ngi leen di sant bu baax gis nañ seen taxawaay di ci suba ba léegi yéen a ngi fi rek fas yéen ànd ak ñun ànd ñu ko ànd koog fii fas yéen ànd ak ñun Grand Théâtre kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan télé bi yàlla na fa fu mu bëgg a yàlla na fa suñu borom àggal ci barke Seydina Mohamed ci barke Serigne Touba ak maam ñi ngi ci sant ñëpp nak ku bax ñu ngi lay delu jaar bax ah Aida ci limi wote kum ci wo da nga wara wuyu ndax aduna bi Serigne Bamba rek mo fi dess te ku na xamne ni Serigne Bamba moy Serigne Aida jël bopam dipé ko Aida mu Serigne salew ñu dëkk mu doon soxna su bax soxna su am talube di soxna so xamanteni ni ni Serigne saliw don doxé rek lay doxé na Cheikh Béthio don doxé ak Serigne saliw mom la soxna ay mii di doxé ay foo foko fekk day bernde lu mu am bokak ak jam ñi lu mu am ku am dëj mu tew ku am banex mu tew lu way xew la mu duggal ci loxom da nga tuddu Serigne saliw rek lu ko way di nax dal ci Serigne saliw ngay jaar bis mom nak mohammed mi nga xamantene mom tamit taalibe Serigne Touba la bëggul kenn ku dul Serigne Saliou di ndawal Serigne Saliou mu am bisam bi mom suma xarit la maa ngi koy nuyu di diko ñaanal yàlla yalla yeggal bis bi. mu am bisam bi tuddee ko ayda mu Serigne Saliou kon ñun sunu teewaay fi day yondal daal waaw. dama jagat yalla bi neexul ndax xam nga ñun ñu ngi jigi décembre bi suñu feet la yalla bi neexul sax mais dama jaayante ne damay ñew Legi legi ci kër gi gisante ak mom mais bu ngoonee incha allahu rab fu mu teg tànkam ma teg fa sama tànk ndax Aida moom musul génne loxoom ci ñun koñ bi muy mag muy ndaw muy artis muy ku ma mënti doon lu waaye xewle ayda dina ci def loxoom te Serigne Bamba sëriñ Serigne Saliou rek a tax muy def man wax naa ko nee naa ko man kenn rekk a tax ma jàppale muy Serigne Saliou mii ndax ñun Serigne Bamba ak Cheikh yi rek lañu bëgg kon kuñ ci woo ci loolu dañu ci wuyu. mu doon ku bax nak di ñaanal bisam bi yalla nako yalla yàlla yeggale jam ci barkib Serigne Saliou momit yalla nako Serigne Saliou taxaw sam ko ay dal kontan nañ ci mom waaw kontaan nañ ci mom trop liko mohammed Mouhamed ñaa ni lu war la jékkiw ko yalla ci yalla def jam bo ngone inshallah rabbi bu ngone mohammed ñaa dina gis lu musta gis dina xam ay daay ay daa ay daa ay delloo ziar e eh, tey moom mën naa ne yëg-yëg bu ñam moom mosuñu ko yëg ko parce que man ak Aïda dañoo bokk lépp dañoo bokk yaay bokk papa aussi muy aussi jigéen gu jàmbaare wax dëgg yàlla famille bi li mu def mën naa ni bon jafe na lool nga gis jigéen gu mel ne soxna Aïda muy dox loolu. bu mbok mbokk gi lépp loo soxla ay da mo ci a taxaw bu dee bànneex muy naqar wax deug yàlla dal famille bi mom gërëm nañ ko torop gis nañ aussi jambar tam ci côté famille bi bisam bi nak man naa ni bis yi ko gën ci bisam bis bi la tay tay dal deug deug gëna Théâtre mom xamna ni dina wacc ndax famille bi ñëpp ngi fi kenn ku ne jóge dëkk ak dëkk ñëw ndax soxna mo salim Allah. <laughs> waaw waaw waaw waaw xam nga fii moom famille moom famille sañse la <laughs> ñoom dañoo gëm sañse incha allah daal ngoon Mouhamed Niang dina gis lu musul gis ci côté sañse ci côté mobilisation gaar yi ngoon incha allah fii la ñuy gaar incha allah jubali grand théâtre à partir de 17 heures incha allah jërëjëf. waaw ñu ngi lay fay sëñ bi Ousmane. waaw. ñu mhm. waaye dafa mhm. yëg-yëg nga mu am moom mooy kontaan wax dëgg yàlla ndax sunu mag la sunu mag jublu yu baax lu ma koy wax rek mbootu na nuy jooy waaye du jo du kii du doom wax dëgg yàlla ndax sunu mag la te seetaanuñ ci dara muy ñëpp la njaboote sëñ Saliou nag boo ci tuddee moom wax dëgg yàlla delloo nga kii Mbattu Sanda la wax dëgg yàlla nit ku baax la bu di wax si moom sax donc doo comprendre quoi mais nit ku baax la daal. ne ko yàlla na yàlla jàmm yàlla may ko gudd fan ak wér ak wérle yokk sutura si yokk man-man gi bàyyi fi ñu njaboot gi ba si kanam a kanam mais comme li ñuy xaar rek nit ki moom boo ko tuddee day waaj ak ay mbokkam waaj ak ñëpp waaw ñëpp bàyyi nañ seen lépp wax dëgg yàlla kenn bàyyi nan laal yeeg bàyyi lépp wax dëgg yàlla dañ koy gunge daal. non lool romb nañ foofu. affaire bi depuis xel xom la commencé. waaw. bëgg na la bu wér-wér waaye. soxna Aïda Mousseye Saliou ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la tey la set euh, guddi Serigne Saliou ñu jox la ci cër bu mag a mag ñu waaj ko at waaj ko weer ba mu des ay minutes yu néew ñu fekk la fii nga ànd ak euh, doom yi xarit yi ak dëkkandoo yi ba ci sax mbokk yi euh, ngeen di waajal bés bi tey ban yëngu-yëngu waa jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Euh, di gën a yeesal nag sama mbégte ci ñi ma yàlla booleel ndax soxna Aida soxna Aida international la te li ko yóbbu international du kenn ku dul sangam bu tedd ba di Serigne saaliw waaw ndax nag dimbali na ma jàppale na ma taxawu na ma bis ma am tey dama koy delloowaat Serigne Saliou delloowaat ko njabootug Serigne Saliou waaye jox ko Serigne Cheikh mi nga xam ne tey nu taxawu taxawu bi nga xam ne Serigne moo nu ko waroon taxawu ba sama digganteeg mu xamee ñaar du dara lu dul taalibe ak mbokkum taalibe waaye di diggante jëwrin ak ndeyu daara waaye nag bis gis bi wéetuma ci benn yoon ndax su ma gestoo damay gis samay soppe su ma gestoo damay gis samay mbokki bopp su ma gestoo damay gis samay xarit ndax nag bis bi man dama koy yaakaaroon ni rek Serigne Saliou mi ma jox bis bi boole maak Mouhamed muy taalibeb Serigne Saliou may taalibeb Serigne Saliou ñu delloon te cër ngir jëmmi Serigne Saliou ku tedd ki ku ne xam ne soxna Aida amu ci sago soxna Aida jàpp ko yëgle ko ànd ko ki mbokkam publicité bi lañ dégg mais mbokk desul xarit desul soppe desul mbokkum taalibe desul ma yaakaar ne tey bis bi kenn ku ne nag am nga mbër te ku ne kay waajal sa mbër waaye mbër mi tey dama ne bu doon ne tey roi des la ñuy samp soxna Aida tey dina jël rek gàdd gi ndax li koy waral mooy dinañu gis spectacle bu kenn mës ta gis grand théâtre nag guddi guddi am na fa mbër mu ne taxaw na fa jàmbaar ju ne taxaw na fa waaye tey dañoo woo jàmbaaru jeunesse mooy jàmbaaru mooy ki nga xam ne Serigne saaloo ko wayloo ndax Mouhamed Serigne Saliou ko wayloo ndonga daara la jaar def ndonga tarbiya Serigne Saliou def jëf ju rëy ji mu def ci bëñam ba jamono jamiy metti ba tey loolu feeñ bu demee xel ko mën ci lépp lu nu daje Mouhamed taxaw ci tey nag sama diggante tuddee ak moom ak bis dara taalibe la ak taalibe kon tey dañuy delloowaat lépp ma delloowaat ko génération Serigne Saliou waaye boolewaat ko delloo ko samay mbokk delloo ko samay xarit delloo ko samay soppe Sénégal ku yeex doo am place soxna Aida tey dina indi lu yéeme stade bi day fees tey moom stade bi laa koy tuddee duma ko tuddee grand théâtre ndax li ñuy war a def ñun xajuñu biir grand théâtre Mouhamed bu ma tàggu woon du jël grand théâtre la ca ginnaaw grand ku ne di ko wër fa lay jëli ndax ñëpp a ngi koy pare amul ku ko parewut senegal tey boo gisee salon yi fees nan ajjuma daawul demee nii ci réew mi fi réew mi toll waaye nag tey ngéwal yëngu na bàkkoo soxna Ayda mu Serigne Saliou ni nga mel Serigne Saliou la bëggoo ku dul Serigne Saliou ku lay way na la way ci Serigne Saliou yi Mbàkke yow la Serigne Bamba dimbali boole la ak Serigne Saliou Mbàkke Ayda nga gudd fan laa lay ñaanal sama wajib ji boo mu gën ci ñun lool ndax li la Serigne Bamba def Serigne saliw def la ko yaa koy bokk ak ñi la ay da teral nga buur teral baado la teral nga say maas ay da yaangi dimbali néew di dolay bu guddi jotté nga juk di seet ñi yalla neewal nga leen di dimbalé soxna Ayda mu Serigne Saliou man Baye Ousmane nga gudd fan laa lay ñaanal Mouhamed ñaa bu defee lii wàcc na munul jéggi ku la mag mbaa mu jéggi la sut Ayda mu Serigne Saliou Serigne Saliou laa lay bàyyeel yaa doyloo Serigne Saliou sunu yaakaar yaa bëgg Serigne Saliou sunu yaakaar tey ak ëllëg fu ñu jëm sang bee wéetal nga maay Mbàkke waxoon naa la ko sànq barke maam Cheikh Ibrahima Fall semaine bi yëpp bi sama soirée bi jàllee ba léegi premier janvier maa ngi biir clinique mais yow boo wootee ci Serigne Saliou damay ñëw ndax yow neenaloo kenn wax naa ko fii léegi ay da yow neenaloo kenn ay da bu la neexoon yow nit ñi dañ lay wër balaa ni leen nit di gis day sonn wax naa la ko benn yoon wax naa la ko ñaari yoon ñett xamuñu waaye man xam naa yow xam nga man ba ma la xamee ba tey ah da doon neex de waaye mu ngi gën a neex barke maam Cheikh Fall ba ma la xamee ba tey ba may xam da doon neex mais day gën a neex ndax seetaanoo ma barki Demba Ndiaye sunu nawla bi fii la taxaw waxala lim lay waxal wax naa la ko. genn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko Wally sekk mii la nga séqante moom ba tax mu lay waxal lu baax yow xam nga ko moom xam na ko yàlla la yàlla defal jàmm yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla may la wér man li tax ma gën la bëgg. moy new di dole ngay jàppale ay rew li la yàlla jox yang koy jël di ko bokk ñi la yaakaar man lii boolewuñu ñu mak yow barke mam Cheikh rafal chaque jour ma lako suma fi ñew dama la fi mujjé tok di la nga may may dama la bo ma maytee xaalis jour mo fi ñewuti parce que andi wu ma fi mais man Serigne Bamba ak Serigne Saliou motax ma jàpp la na yalla defal jam yalla guddal sa fan yalla yeggaleel la ci barkeeb Serigne Saliou do am tank ginaaw mukk ay tank kanam rek ngam ndax ki nga andal kendo andak mom di am tanku ginau yàlla na la Serigne Saliou gën samula taxaw sàmm la sàmm jam, njaboot defal la jàmm ba bis bii ñu la tuddee boo demee nga am ci ndam ci barki Serigne sax ci am ndam